toppante kenn ku nekk di sa bopp di sa moroom di yow moom la Cheikh Ahmadou Bamba ci yi war ci lawaajib yi war ci tasawuf wa rafqatun wa hiya al wafaai bi sidqin fi l mbooloo la ñu li wala wax naan rëbb ca la boo yow kenn ku baax yow kenn nga dëkk ak fanweeri nit ñu bon lu baax lu tuuti muy bëreeg lu bon lu bari lu bon li daf koy not bu dee fukki nit ñu baax lool di jaxasoo fukki nit ñu bon lool fekkee ne amu ci kenn koo xam ne baaxam nga dem na ba ëpp kàttan fukki mbon mbon yooyu ndam du dem ndam du dikk moo tax lu baax fa mu baree la gën a yombe boo dee nit ku baax na ngay fréquenter milieu yu baax milieu yi gën ci milieu yi mooy milieu boo xam ne doo fàtte yàlla waaye milieu yi nga xam ne boo ca nekkee sa xel dem ci yàlla mukk ni ki jotaayu poy yi sa xel dem ci yàlla mukk bokk na ci mooy yi gën a bon waaye moo tax ruf ka am solo mbooloo mi nga nekk di mbooloo yi nit ñu baax rek nga xam ne ñoom ñëpp kenn du wax loo xam ne daf lay wàcce luñu wax rek daf lay yéeg li ñuy li ñuy gis ak ñi ngay gis yu ñuy jëfe ak li ñuy nga xam ne moom moo mooy seen melo toujours daf lay fàtteloo la ca des geneen wàll ga waxtu woo xam ne al judul ilahi yi ñëw day fekk nga nekk mustaid sa ndab dal di fees mooy fatxu gi nga xam ne day bette day dal di ñëw ñu naan diw kañ la ko di dikkal ndax nit ki sax ndabam mën na daan taq di taq ba benn bis mu set rek ci benn gendiku bët dajanteeg taw bi di sottiku mu fees mu daal di raw ña ca des kon taalibi war na fu mu di gën a góor bu war nay xeram di dem ci sëriñ bi ci boppam li mu daj rawat ni fukki at ak juróom benn yooyu nga xam ne mooy bi jiitu géej gi ak bi mu nekkee ci géej gi bi mu fi jógee bi mu demee gànnaar bi mu dellu si Thiéyène ba bi mu ñëw njaareem ndax bokk ci charte yi ndab li di set toujours ay ji charte ne li kay laa ala ma fatakum wala ma asabakum ay jooju tur Uhud la wàccu ba nga xamee ne natt bu mag dal na jullit suñu borom di leen tàmmal muñ di leen tàmmal xuus ci njàqare ak ci naqar ak ci ñu bari ci ñoom dee ak ci ay jam-jam yu metti teewul ñu di leen santati war a jugati dellu ci beneen liggéey bu mel ne biñ gaañoo woon gaañ bi bu mel ne biñ jàqe woon bëttiit bu mel ne bi nga xam ne ci la ñu bari ci ñoom deexee ngir wulli seen xol ba nga xam ne dara dootu leen tiital ci àdduna dootuñu ñàkk dara ba mu naqari leen ñu am dara ba mu bégloo leen woow loolu mooy melow yi nga xam ne moom la mu wax mel dëgg mooy buñ ko joxoon adduna li ci biiram itam ah dañ ko xañee ba amul lu mu lekk amul lu mu naan amul lu mu sol ñu yem képp ci moom mais ñu Cheikh Ahmadou Bamba nee na gàmmu ko nga xamee ne fekkoon na ko gabo amul lu mu terale guddi yonent bi lu dul benn ganaar mu rendi ko di seet benn jullit bu mu ko jox gisu ko ba mu jëm ca quartier ga fekk fa di laajte ba gis soldaar bu tudd Muhammadu mu jox ko ko ak gàmmu gi mu gàmmuwaat ci njaayam ñu rey nangami nag xamewul ñaari gàmmu yooyu mooy li koy daa taasoo ala ma faatakum wala tasraxu ma ataakum